yëpp yëpp lii mooy Médine waaye yow xaaral la mais non maa dirigé combat daal. lu bari tey. ah. waaw mais c'est la famille. waaw gis nga waaw gars ah. waaw waaw kontaan naa de. waaw di bëggee tey nag euh, tey bésu mbégte la ah. waaw. waaw moo tax tey presse bi ñëpp si la mënut a ñàkk ah. waaw waaw li yow waale ama doom bu jigéen macha allah yàlla na dund te barkeel. amiin amiin yaa rabbi tey bés bi Wally Seck yëg-yëgam ci bés bi ak ku bëggoon mu fekk ko te fekkewu ko. waaw am naa ci contentement maa ngi sant yàlla bi ñu ko fekkee jàmm di ñaan xale bi yàlla na gudd fan te barkeel. ay waajuram fekkee njëriñam askanam yëpp. ah di sant di leen sant bu baax a baax. am ma bëgguma woon woon xam nga man mënumaa xew. <laughs> waaw mosumaa xew sama life you naw je préfère li may def ci ay côté ay tudd ak yooyu.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 donc euh, gis naa public bi nañ ko apprécier mais loolu loolu moom euh, mi ngi suñu kanam. est-il possible mu ñëw. mi ngi suñu kanam.